asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen leen nuyu te di leen ziyaare te di leen baalu àq di leen baalu àq fas yéene dikkaat rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafaa'i bi xuquuqil imaan moo koy ànd ak yéen bi weeru koor gi tàmbulee ni leen ko waxe woon ñu fas yéene dalal suñu mbokk sëriñ Mouhamad Diouf bàyyi ko ba Ndakaaru fas yéene ñëw ànd ak ñun ci wàll goo xam ne gu mu xam la ndax ci la liggéey ba retraité ci ñaareel ba tamit ci lay yëngatu fi ne nii di ko jàngale nekk ci tamit ak consultant ci wàll googu muy wàll goo xam ne xaj na ñu baree bari xaw nañ ko umpule wala umpule nañ aslëf ci la nekk ci biir tey jii nag mu ñëw ngir indiwuñu ay leer ci wàll googu muy acte 3 wala ak tàmbalee ko ci acte 2 ba ci acte 3 acte 3 de la décentralisation di loo xam ne mooy gox yi ak goxaat yi ndax ginnaaw léegi Sénégal dañ koo def dañ koo def ay gox yi ak goxaat gox ak gox gox ak goxaat yooyu ñu am ay compétence yoo xamante ne dañ leen koo féetale ñu war koo saytu te ci biir gox ya goxaat yi ci leen population bi dund kon képp koo xamante ne yaa ngi dund ci biir gox yooyu noonu war ngaa xam loolu nga xamante ne mooy ay compétence yoo xamante ne dañ koo féetale ñooñu te nga nekk ci biir kon loolu lu am solo loo xamante ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom ginnaaw bi mu jeexalee ak njàngam ci la dugg fële ci école normale supérieure muy daara ji nga xamante ne fi lañuy tàggate jàngalekat yi bi mu fa tàggatoo ba noppi lañ ko affecté fële ci kawlax mu nekk fa professeur u histoire ak géographie mu daar ci ay daar yu bare bari jàngale fa waaye ginnaaw bi mu jógewaat foofu dugg ci ENAM muy jeneen daara joo xamante ni dañu fay tàggate ay administration ay administrateur ginnaaw bu mu tàggatoo ci daara jooju ba noppi nag lañu ko yóbbu fële ci Louga muy liggéey ci wàll googu ci wàllu administration jaar na kon Louga jóge fa tamit jaar fële ci Ndar ginnaaw ba ñu affecté waat Ndakaaru ginnaaw ba nag ci mujj gi lañ ko indi fële ci ministère de l'intérieur ci 1995 ba 2001 foofu la nekkoon di liggéey nekkoon fa directeur des collectivité locale kon foofu la liggéeyee ba retraité ginnaaw bi mu retraité tamit ginnaaw moom ci loolu la doon yëngatu nekk lu mu xam ci la ubbi benn cabinet benn cabinet boo xamante ne dañu fay dafay jàngale ak di fa tàggat ay nit ci wàllu administration nekk tamit consultant ci wàllu googu noonu ba tey kon mën nañu wax ne moom lii ñu ko jox tey jii nii lu mu xam la ndax da ci liggéey jàng ko di ko jàngale tamit teg ci kon ci tënk euh, kooku mooy ki nga xamante ne moom lañu dalal tey ji incha allah ni ma ko waxee léegi rek muy waxtaan ak ñun ci affaire wu euh, décentralisation waaw ñu dalal tamit suñu mbokk maa job bi tey di ki nga xamante ne mooy meeru dëkk bi moom tamit mu ànd ak moom incha allah ci tomb bi nga xamante ne moom la sëriñ bi fas yéene waxtaane bu sëriñ bi waxtaane ba noppi incha allah danañ jox kaddu gi sëriñ maa job bi tey su ko defee moom dana def synthèse dana def dana tënk li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane su noppee incha allah euh, laaj yi nga xamante ne moo aju ci li mu doon waxtaane su ko defee incha allah ñu dugg ci laaj yooyu loolu yëkkati jotaay bi kon ci tënk rek noonu la jotaay bi fas yéene doxee incha allah kon ci njàlbeen moom danañu xamal buñ waxé acte 2 wala acte 3 de la décentralisation lan lañ ci djublu ak lan moy avantage bi ak lan moy inconvénients yi ci nek ak jafe-jafe yoy ci nek naka lañuy def bay saafara kon inshallah lolu mom moom danañ andil ay lér ci biir waxtaan señ bi señ mohammed Mbacké ak kilifa yi ñu ci fekk señ Mahfouz Mbacké ak ñi ma àndal jóge Dakar yëpp maa ngi leen di gërëm di gërëm mbooloo mi di leen sant di wax nag ne lii lu rëy la ci man ndax xam naa ne thème bi ngeen jël sant ma pour ma waxtaan ci ñi ko a def Sénégal nañ lool kon ma ñëw ci xam-xam di Muxti ah yaakaar naa ne sag sag mënu koo ëpp ma bugg ko rafetlu di gën a rafetlu nag ni nga xam ne noonu la ma sëñ Moustapha Ndiaye wone programme bi ngeen xam ne moom ngeen tëral ci lu jiitu bés bi ak bési tey ak bési ci topp loolu nag yaakaar naa ku xam Daaru Muxti doo wax ne guléet lu luñ luñ fi fekk la kon nag ab liggéey la boo xam ne da ngeen ko fekk di fexe pour continuer ko te li ma ci gën a neex mooy ngeen jël nag ay thèmes yoo xam ne dafa ànd ak jamono bi xam ne taalibe yi leen topp ak ñi leen yaakaar euh, xam naa ne lépp luy diine moom wax ngeen leen ko jàngale leen ngeen ko ci ngeen dëkk guddeeg bëccëg waaye nag taalibe yi dañu am ay itte di dund ci jamono bi kon nag ragal naa lépp loo xam ne lu am njëriñ la loo xam ne mën nañoo jànkonte ak moom mu nekk loo xam ne ay mun naa nekk jafe-jafe ci seen dund ci biir senegal ak li yaakaar naa di ci waxtaan ak ñoom moom itam lu am solo la kon nag loolu mënuma tàmbali waxtaan bi te àgguma ci ak yéen di leen félicité di wax na ci ni ma gisee ni ngeen organisé woo li ngeen def nii lu jara roy la te yaakaar naa daara yi ci Sénégal yëpp war nañ war nañu ko roy euh, thème bi nag ni ko sëriñ bi waxee xam naa ne thème bu gudd la waaye nag dañuy tënk bu ko defee laaj yi dégg ma li nga wax danañ ci wax daal li nga xam ne moom lañ ci xam waaye nag point yi nga xam ne moom la wax ci yooyu lañuy ñuy gën a taxaw ndax thème bi ci boppam mu ngi tudd acte trois de la décentralisation danañu wax avantage mooy li nga xam ne mooy njëriñam ak enjeu ak li nga xam ne mooy soloom ak li nga xam ne moom la tubaab tuddee contrainte mooy ay jafe-jafe yoo xam ne daf ko làmbool ak li nga xam ne mooy perspective li ragal ne ca kanam mooy li nga xam ne moo koy saafara bu ko defee nag ragal naa ne ci laaj yi nga xam ne moom lañ war a laaj am na ci ay détails ay sew-sew yoo xam ne ci lañ ciy door a dugg kon nag waxtaan noonu la demee mënuñoo tëb nag wax ci acte trois de la décentralisation te waxuñu lan mooy acte un waxuñu luy acte deux ndax acte trois ci gàttal mooy ñetteeli jéego boo xam ne moom la décentralisation def ci ba Sénégal amee indépendance ak léegi Sénégal nag. ñëpp xam nañ ne 1960 la am indépendance li jiitu 1960 nag ci baati décentralisation ni ki yaatal bu gouvernement yaatal ba jël ay sañ-sañ jox ko ay kuréel mu ngi emoon ci réew taax yi moom la ñuy wax commune commune yooyu dañu amoon ay maire maire yooyu ay conseils municipaux ñoo xam ne population ya fal ñoo daan daje ci seen mairie fal maire ku leen jiital ak ay adjoint ak bureau lu ñuy wax bureau municipal loolu mooy li nga xam ne moo fi nekkoon démb ak bërka démb waaye nag li jiitu 1960 day ah maire yi emuñu woon dayoo emuñu woon ay responsabilité ndax ragal naa ñépp xam nañ ne amoon na fi lu ñuy wax quatre commune ñeenti communes mooy Ndar ak gore ñoom lañ fi njëkk a créé commune teg ci Tëngéej 1880 teg ci Dakar def ko commune 1887 tekkul nag ne dëkk yooyu amuñu woon avant 1872 mooy ci la ñu sos def Ndar commune def ko gore xaar ba 1880 ñu def ko euh, Tëngéej commune xaar ba 1887 ñu door a def Dakar commune waaye loolu tekkiwul ne nekku ñoon ay dëkk ay dëkk lañu woon lu jiitu loolu parce que Ndar ñu ngi ko sos 1659 waaye bu ñu toogee ba 1872 ñu door ko def commune mooy wane ne jëmmal nañ ko jox ko conseil municipal jox ko maire ca 1872 lu ko jiitu nag loolu amuloon Tëngéej. amoon na bu yag, waaye 1880 le door am conseil municipal ak nek am maire Dakar soso nañ ko bu yag. ndax xam nga suñ mbokki lébu yi ñoko sos lu yàgg lu mot ñetti téméré at avant que ñukoy def commune waye commune nak buñ la ko défé moy dañ la jëmmal jox la daraja jox la conseil municipal jox la maire nga yor sa budget ah yakarna lolu seen mbokk mi ngeen dëkkal di seen taalibe di ma jóg bi tey yaakaar naa xam na ci dara kon nag loolu moo fi nekkoon waaye ñeenti communes yooyu nga xam ne ñoo nekkoon Ndar ak Gorée Tëngéej ak Dakar seen daraja ci commune dëkk ba nga xam ne falaa juddoo man tudd Kaolack àgguloon ci dayo boobu ndax xam nga ne ku juddoo woon ci ñeenti communes yooyu ma tudd citoyen français nga woon te te citoyen français donc communes yooyu dañ leen joxoon daraja comme commune yi tugal comme commune yi France yeneen communes yi nag nga xam ne ñun doomi baadoole ñoo fa dëkk ay communes indigènes la woon ñu nekku ñoon ay citoyen français waaye indépendance nag bi mu amee nga xam ne ñun ñëpp citoyen sénégalais lañ ci la ñu nag defar li ñu wax euh, commune de droit commun mooy mairie yi amoon yëpp yaa xam Sikicoor la yaa xam Njaareem la yaa xam Louga la yaa xam Kaolack la Bignona Foundiougne dëkk yooyu yëpp ak Dakar ak Tëngéej ak Gorée yi ma tuddoon ñooyam dayoo parce que boobu fekk na ñun am nañ indépendance alors léegi ñëpp citoyen sénégalais lañ waaye lu jiitu indépendance nag communes yi emu yoon dayoo amoon na commune de plein exercice mooy ñeent yooyu ma tudd ak communes yi nga xam ne commune mixte la genn wàllu conseil dañ koy fal genn wàllu conseil dañ koy nommé ndar gouverneur bi nekkoon ndar moo ko doon nommé waaye bi ñu amee indépendance xaj ak seen yooyu ñu defoon ci ay parparloo te loolu tubaab bi daf ko defoon rek pour mën ñoo noot ndax moom la ñuy wax diviser pour régner diviser pour régner bëgguñu woon pour ñu ànd ndax bu ñu àndoon ñun ñëpp nekk benn kon moom daf fi gaaw a jóge moo tax mu defoon diviser pour régner donc communes yi emu yoon dayo ñu jël ay communes berlin ñoom ñu mel ni ay communes France jël yeneen commune ñuy commune yi nga xam ne ñoo nekk indigene mooy ñi nga xam ne amuñu nekkuñu citoyen français biñ amee indépendance nag nekk ñun ñëpp citoyen sénégalais ci lañ def communes yi yëpp ñoo yem ñoo yem dayo alors loolu bëggoon naa ko fàttali ndax moo jiitu acte un biñ amee indépendance nag biñu jëlé jëlee loi bu tuddé code de l'administration communale ab charte la bo xamné ci lañu def ak ak yelleef fi képp kuy conseiller municipal wala ngay maire nek ci ci commune lan moy sa ak ak lan mo sa yelleef code de l'administration communale parce que boobu commune rek a fi nekk ba 1972 1972 nag boobaag léegi mën na ñeent fukki at ak euh nekk na date boo xam ne bu jare jàpp ci histoire yi décentralisation mooy yaatal bii ñu yaatal ba wàcc ay sañ-sañ ci kaw ba mu ñëw ci dëkk yi ak dëkk dëkkaani loolu mooy décentralisation ndax centralisation moo ñu dajale lépp fenn ci capital bi nga xam ne bala daray sotti foofu ngay dem loolu mooy centraliser décentraliser nag moo ñu jëlee ay sañ-sañ ca kaw di ko wàccee mu ñëw ci communes yi ñëw ci département yi ñëw ci communauté rurale ñëw ci région ba lu bëri looy toppatoo jaratul ngay dem dakaar mu nga yem ci dëkk yooyu mu faju loolu mooy décentralisation décentralisation boobu nag ñetti jéego yi mu def ci la ñuy waxtaan jéego bu njëkk bi nag bi am solo mooy 1972 ak léegi ñeent fukki at la ak ñeent ndax ñun ñi dëkkoon ci àll bi dañ daan dégg rek décentralisation ndax commune moo moomoon décentralisation waaye 1972. ci lañu créer communauté rurale communauté rurale euh lu am solo la ndax ci la décentralisation duggé ci àll bi ndax décentralisation mu ngi emoon ci réew tax yi waye 1972 bi nga xamé ne sos nañu communauté rurale mu am président de communauté rurale ci gattal ñaan ko PCR créé la décentralisation dugg nak ci àll bi waye 1972 décentralisation mu ngi amoon ci réew taax yi bi mu ñëwee nag ci àll bi am na lu bari loo xam ne erreur la woon loo xam ne njuumte la woon ci décentralisation bi mu yemee ci réew taax yi loolu bi ñëwee ci 1972 ci communauté jéem nañ koo faj ndax am nañ ca ndam wala amuñ ca ndam nag kooku beneen affaire la waaye daal jéem nañ koo faj ana ban njuumte lañ defoon ci li jiitu 1972 bi nga xamee ne ay commune dañ fi nekkoon mairie yooyu ñoom liñ doon dépensé ci budget bi budget bi nga xam ne mooy koppar yi nga xam ne moom leen askan wi dénk lañ ko doon dépensé daanaka li tubaab di wax action sociale moo ci ëppoon ay dépenses à dominante sociale ay loo xam ne daal luy suqali askan wi la ci ndimbal ak euh, jël ay koppar ne dañ koy joxe ci di dimbali nii bu korité jotee wala bu tabaski jotee wala ku am lakkale wala mbë mbënd bu amee ñu jàppale la yooyu daal lañ doon def te nag xam nga li nga xam ne mooy indi développement ci commune <laughs> monsieur le maire xam na ko alors il faut que mu am ay investissement investissement mooy ñu defar ay yoon tali dëkk bi defar courant lamp dëkk bi am courant euh, defar ay maternité defar ay dispensaire xale yi naan ko léegi poste de santé centre de santé sax mu ne am centre de santé moo ëpp poste de santé defar marché moderne ah ba nga xam ne du mel ni suma marché dëkk ba Kaolack di lakk at bu jot mu lakk loolu moom taamuñ ko ci marché sécuriser ko Euh, def ca li ñuy wax bouche d'incendie da nga ne bu takk bu bu ne déclaré na lakk rek sapeur pompier yi ñu fa lay branché raccord rek a di fay lakk gi yooyu mooy soppi dëkk ni nga xam ne loolu mooy xar kanamam bi ñu yëg ne dëkk bii kat mu ngi yokk mu ngi développé loolu moo war a tax décentralisation jóg waaye du caa gën rek pour jël xaalis bi di ko pasar pasare di ko jox Masamba di ko jox ma Mademba euh, lu xew ñu jóg taxaw loolu moom taxul taxul moom budget boo xam ne ay nit ñoo fay seen lempo dañu war bu ñuy gis bu ñuy def liggéey ci dëkk bi ñi fay seen lempo gis seen bopp ci li liggéey loolu mooy li nga xam ne moo tax commune jóg moo taxoon commune rurale jóg commune rurale nag ba yegsee moom ca na nga xam noonu la budget am bindoo dañu dañu def li tubaab di wax corriger mooy dañu faj loolu nga xam ne njuumtale woon ci budget commune démb mom defaluñ ko sax dépenses de fonctionnement mom commune fonctionnement mo taxone ñuy def dépenses passer passer yooyu mom dañ ko tëj tuuti lañ ci def li nga xam mom lañuy la fay chef de village yi ak ñi nga xam ay juuti lañ dem ci marché luuma yi di fayeku ay juuti sen pay ak li nga xam moy maison communautaire moy fa nga xam fa le euh président conseil rural bi ak conseil rural bi dajee li nga xam moy tax ñu mun ko peinture défarat ko chaque année donc ay entretien lolu mo doon dépense toute dépense de fonctionnement bu jëm ci euh rurale dem nañ be pour fay sax salaire mënuñoo fay salaire De communautaire pour mu fay ASCOM bi moy secrétaire bi nga xam moy mooy ak maire dañ ko considérer dañ ko defal contrat dañ ko def ko comme contractuel mais ni ku ñu sant liggéey mu def liguey bi ñu fay ko waaye defuñ ko ci chapitre boo xam ne chapitre fonctionnement la donc euh, bu fekkoon ne dafa am ndox mu doon tour di yàqu ci budget communautaire kon tëj nañ ko jël nag budget bi 95 pour cent yi boo ko xaajee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ak juróom yépp ci investissement luy soppi euh, jëmmi communautaire bi lay doon ay yoon lay doon ay dispensaire ay école loolu mo taxone commune Tral jóg kon commune Tral bu fekkone ne tombewul Sénégal traversé euh, waxtu wo xam dafa amone jafé jafé bu am ci budget réuni. euh am li tubaab wax plan d'ajustement structurel nga xam digënté diggante 80 ba 90 Sénégal dafa traverser coono boo xam danaka euh, euh bailleur de fonds yi ay banque mondiale ay fonds monétaire ay réew yuñ lëkkalool teñ ëpp ñu doole ñoo ñu doon jàppale waaye Sénégal euh, traverse na fi jamono boo xam ne jamono bu jafe la woon bu fekkoon ne amul ñoo amuñoon ak xereñ sax kon daanaka yëngu-yëngu ci am réew yi ñuy wër mënoon am Sénégal waaye nag ragal naa ne ah ñaani sëriñ si itam ci la bokk ndax Sénégal traverse na fii diggante quatre-vingt ak quatre-vingt-dix ay jafe-jafe yoo xam ne ah lu nit gàtt gàtt xel wara nga xam ne ah mbir mi baatin baatin laxasu na ci ndax rew yi nga ñoo lañ frontière Sénégal ne tekk rek kon nak loolu lu jara waxtane la thème la ci wi bu acte 1. acte 1, moy jéego bu am solo Sénégal a def ci décentralisation moy 1972 Si Sénégal ñeen fukki Sénégal jël décentralisation duggal ko ci bi dugal ko ci suñ dëkk yi nga xam ne ñun ñi dëkkul Dakar dëkkuñu ci dëkk yooyu alors ñun ñu doon a jot ci décentralisation loolu moo indi baati communauté rural communauté rurale nag buñ ko doon firi baat bu rafet la ndax communauté mooy niñ dëkkee ci Sénégal nga xam ne ñun ñëpp ay communauté lañ ay mbooloo lañ famille boo gis benn lañ kuréel boo gis benn lañ bokk ndey bokk baay rural te ñu dëkk ci kow yi loolu la tekki waaw kuréel la boo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk ñi nga xam ne ñoo lañ def commune rurale démb bërka démb ñoo mayante soxna ñoo dëkkoon moom la vasinage ñoo dëkkoon dëkk bu rafet euh, bokk daanaka benn juma bokk benn sëriñ bokk ay aada loolu mooy communauté rural tam fare ci kaw ñu defal ko président de conseil rural muy PCR loolu dund nañ ko ci Sénégal té nee bu fekkoon nekul jafé jafé yi Sénégal jànkoonteeloon kon fi communautaire yem bi ñëw 1996 muy acte 2 kon nekkoon développement Sénégal waron nako passé waaye nak dañ ko sos mu daw tuuti tombeeg ay jafé jafé ñu ñëw nak ci 1996 1996 mom neex na firi parce que boobaak légui ñaar fukki at la 96 ak 2 ak 2016 20 ans la muy ñaar fukki c'est acte 2 de la décentralisation momit ni acte 1 amé solo 1972 non l'acte 2 amé solo moy C'est li djégo buñ def ci décentralisation djégo bu am de la ndax contrôle bi nga nous mom lay doon contrôler collectivité locale collectivité locale moy une bi eumbu commune ak communauté rurale ak région sax def nañ collectivité locale région gannaaw gi lañ ko dindi ci acte 3 waye ci acte 2 nekkoon na ko contrôle bi ñu leen koon contrôlé moo diisoon moom lañ tuddee woon contrôle de tutelle moy bala ngay def dara ministre de l'intérieur mo koy signé tam joggé ci mairie ya xam budget la wala mu dem ci gouverneur wala ci préfet loolu nak diisoon na lool ci commune yi waaw moy contrôle de tutelle teyit nak dafa xawon niru ñak óolu ndax fekkee looy def il faut mu dem ba ndakaar ñu signé ko mu door a dellu si Darou Moussi loolu diis na lool wala mu dem ba Louga gële gouverneur signé ko mu door a ñëw ñu mun koo jëfe loolu lu diis la woon loolu moo doon contrôle de tutelle ci 1996 nag boobaag léegi ñaar fukki at la di acte 2 de la décentralisation ci lañ ko soppi ñu dindi contrôle de tutelle boobu ndax dafa diisoon te ci li tardeel communes yi ak communauté rurale ci la bokkoon nit ki mënul population mënuñ ko fal fal ay conseil conseil dugg ci biir conseil municipal bi fal maire ba pare ñi ñàkk ko óolu di jël keuy bu mu def diko ko yóbbu ba Louga contrôler lolu doyna na waat moo tax ci acte 2 1996 ñu dindiko bañ ko dindé dañ def dañ ko remplacer par li ñox contrôle de légalité contrôle d'égalité moy mooy ndaxam danañ la contrôler waye bo awé yoon rek bo jaaree ci yoon légalité moy lu aw ci yoon bu awé ci yoon rek baax ñu nak amna ñaar fukki mbir yo xamné ak juróom-benn maire mu nu ci won def dara conseil municipal mu ci won def dara té préfet wala gouverneur wala ministre de l'intérieur signé wu affaire yi mbiri suuf ci la bokkoon budget bi ci la bokkoon lepp lu jëm ci tabax ci la bokkoon lepp lo xam dafa jëm ci lepp xaliss pour commune bi mëna liggéey liggéeyam ci la bokkoon muy ñaar fukki mbir yoo xam ne ak juróom-benn commune wala communauté mënuñ cee def dara te préfet wala gouverneur wala ministre de l'intérieur signé am na ci kayit yu jógee Kédougou ak fa Kédougou nekk ñu war ko indi ba ministère de l'intérieur ñu signé ko pour pour ñu mën ko wéel léegi léeg kayit yooyu diggante Kédougou ak ministère de mu réer jafe-jafe nekkul noonu loolu jafe-jafe loolu moom la tubaab tuddee contrainte ab jafe-jafe loolu boo xam ne bi ñëwee nag ci acte 2 1996 euh, ba léegi ñaar fukki at la moom saafara nañ ko ñu ne daal ñaar fukki mbir yooyu ak juróom-benn yi nga xam ne commune rurale mënu cee def dara te gouverneur wala préfet wala ministre de l'intérieur signé wu ko mu mënu cee def dara te ministre de l'intérieur signé wu ko ndax commune rurale sax oyofalal nañ loon am na loo xam ne ci préfet la am na fi am ci gouverneur waaye commune moom. comme Kédougou boobu ma wax moom ministre de lay jëm directement xoolal fa Kédougou nekk na war a benn ñu dañuy dibale xale yi football xaw ma ODCAV xaw ma ORCAV la tudd ci subvention bu leen mairie Kédougou defal pour que ñu mun a jënd bal jënd seen survêtement yi ñuy footballé mu war a dem ci ministère de l'intérieur ñu signé ko toog nañ ba nawet bi jeex gisuñu kayit boobu ba xale yi mujj nañ football seen équipement yi amoon daaw moom lañ mujj footballé loolu contrainte la woon jafe-jafe la waaye bañ ko yemalee dugg nag moom maire bi day maire bi day tax tali bi rek dugg préfecture ñu signal ko mu ñëw dal di commencer liggéeyam loolu mooy contrôle de légalité contrôle bu lañ gën lañ njëkk ko oyofal terewul nag lañ ko oyofal oyofal am na ci juróom-ñaari ponk yoo xam ne yooyu moom oyofaluñ ko lépp lu jëm ci koppar il faut que bii nekk Darou Mousty mooy xool budget commune bii moo koy approuvé xool ndax aw na yoon lépp loo xam ne mu ngi aju ci leb bitim réew wala ci biir Sénégal emprunt il faut buñ defee délibération mooy wate nañ ko ci mairie bi il faut moom mu xool ko ndax leb moom bu ko ab commune defee bu fekkee fayul état mooy fay kon nag état war naa xool li mairie bii leb ndax fi mu koy dugal danañ ko danañ ko mun a rembourser wala duñ ko mun a rembourser te itam duñ ko seetaan mu leb ci banque boo xam ne banque booba moom sous-préfet bi xamna situation banque yëpp banque bi ci daanu la jëm banque bi xaalis bu fay nak nekul xaalis bu set argent sale moom la ci argent sale waaw fofu mom duñ la fa autoriser nga orienter la nga lepp ci fo xamne fu or fo xamne bu ëllëgee da nga ko mun rembourser té nga duggal ko fo xamne fu melni défar ab marché défar abattoir nga xamne ku fa liggéey da ngay fay bu ko défé defee da fay yokk budget bi waye du la jël xaalis nga lepp ko paré diko def fo xamne dañ koy passer passeré bu ëllëgee doo mën a fay gouvernement di ko fay te du yow la gouvernement élif ndax mairie yi bëri nañu kon nag loolu euh, état du ko nangu moo tax muy contrôler fépp fu xaalis di dem ah ba léegi aussi affaire yi domaine suuf bu fekkee ne mairie bi joxe na ko il faut pour que mu mun a nekk lu aw yoon mairie bi signé ko ndax nag du seetaan kenn mu am loo xam ne dafa ëpp dayoom loo xam ne mënu koo liggéey. il faut ñu jox la loo xam ne yow loo mën a liggéey la yaa xam kër la parcelle la yaa xam parcelle la booy dëkkee yaa xam tool la booy liggéey ne nañ ci wolof bët du yenu waaye xam na lu bopp attan ku nekk ci ñun xam nañ li nga attan doo ñëw fii ne dañ may jox mille hectare te wane woo projet wane woo machine wane woo loo xam ne mën na koo liggéey wala am nga ñoo xam ne mën na la jàppale nga liggéey am na ñoo xam ne bu ñu ko waxee amul problème nañ leen ko jox waaye am na ñoo xam ne bu ñu ko waxee duñ leen ko mën a jox parce que amuñu kàttan ak moyen yoo xam ne mën nañ ko liggéey kon looloo tax sous-préfet di ko xool di xool ndax amul benn yàq bu ci nekk donc yooyu juróom la wala marché bokkul ak marché yi ñuy jaayee nag marché contrat la ñu ngi bëgg a tabax ab war a jëflanteeg benn entrepreneur le document ba ñuy liggéey kooka marché la tudd contrat la ñu xool ndax ak entrepreneur bi mën na ko wala mënu ko parce que ay entrepreneur yi ngi ñuy ci réew mi jox nañ leen fi ay liggéey bañ leen joxee avance nañ leen gëj a gis ñu dem loolu yàq la ñooñu nag ñu ngi leen defal benn liste noire ku koy def foog na yaa ngi ndax nit ñi yaa ngi yàqal sa bopp ndax xam ne ca ARMP liste boo xam ne ñu nga fa def yow boo soumissionné ci marché yi duñ ko nangu ndax jubuloo doo def liggéey bu baax amuloo ay koppar yu doy yu la mun a tax a exécuter bu 100 kon nag loolu aussi yaakaar naa bu fekkee ne dañ ne il faut sous-préfet contrôler ko loolu aw na yoon donc yi nga xam ne moom lañ génne mun nañ ber ne bala ci mairie liggéey dañ koy contrôler boo ko seet loolu lépp dafa aw yoon ndax pour bañ lu lor commune bi ci boppam la wala lu lor askan wi te loolu yëpp bu amee état bi nga xam ne moo ëmb commune yëpp moom mooy jóg kon nag bala muy jóg te gis naa ko ci seen tem yi kat loolu rafet naa ko foo naa ab docteur moo ko retraité ne euh, foog naa fagaru moo gën moo gën faju gis naa ko seen seen thème de loolu de am na solo lool moo tax na fagaru boobu pour gàttalu bala mairie bi yàqule te mairie bu yàqule askan bi yàqule ndax bu fekkee ne yow da nga nekk maire liggéey liggéey bu rafet askan bi yëpp ñoo ci profité waaye bu fekkee ne yow li nga liggéey yàqu na askan bi yëpp ñoo ci loru kooku nag il faut koo xam ne moo fi toogal état mooy dox sa diggante askan wi fànq loolu bala muy am kooku nag mooy le représentant de l'état moom la ñuy wax sous-préfet wala préfet wala gouverneur ñooñu dañ fi toogal dañ fi toogal état lañ fi toogal yow mii maire nag ak conseil municipal askan wi nga fi toogal ñële nag toogal fi état ñooñu nag ñaar ñooñu nag ñoo seq ñoo seq liggéey bi askan waa ngi nii gouvernement baa ngi nii ak ko fi toogal mairie baa ngi nii ak maire bi nga xam ne moom moo jiite commune bi kon nag loolu rafetlu lañ ko lool moom mooy

Aïda da njong mos na maire HLM comme plateau fi nek ni nii ku ñuy wax Ndoye moy maire bi comme Grand Yoff Khalifa Sall bi tay nek maire de la ville de Dakar nekona maire de Grand Yoff donc quartier Dakar bo dégg ya xam yara partout Dakarou amone fukki maire yu ndaw ak juroom ñent 19 communes d'arrondissement Pikine amna fukki commune d'arrondissement juroom juróom ci acte 2 1996 Guédiawaye am juroomi commune Tëngéej am ñetti commune Thiès am ñetti commune foofu lañ ko yemale woon waaye ñun ñu doon def étude bi étudier woon nañ ndar pour def ku nekk ku xool ndar xam ne ndar moom mënoon naa nekk moom mun na bëri ay commune d'arrondissement ndax île bi nga xam ne fii la bi nekk moom kooku moom <laughs> dafa jëmal boppam nga dem Langue de Barbarie ah fale nga xam ne fa la senc baak yooyu nekk moom wax nopp nga ñëw soor fii marché teen jigéen nekk kooku moom commune boppam la nga ñëw dëkk mel ni Kaolack dëkk po nañ ko en commune d'arrondissement waaye nag euh, comme lu ci bëri politique la woon alors président ne yem leen agum ci dakaar ak Géejawaay ak Pikine ak Tëngéej mun nañ ci yokk sax Thiès parce que jege nañu pour ñu mën koo contrôler bu fekkee ne réforme boobu ci ak 2 bi baax na ñu yokk yeneen commune def leen ay commune d'arrondissement waaye nag ñëw nañ bi ba acte 3 te euh, yóbbuwuñu commune yooyu découpé wuñu leen ci ay communes d'arrondissement te loolu lu yombal liggéey mairie dakaar la ndax fukki fukki pàcc ak juróom-ñeent lañ lañ pàcc pàccal Dakar pàcc bu ci nekk am conseil municipal am ak maire di doxal bu ko defee nag yi ëpp solo boulevard yeeg communes yeeg lamp yeeg goudron yeeg yu liggéey yooyu moom la ville de dakaar bi nga xam moo la ëmb moom loolu la yor waaye lépp lu jëm ci liggéey ak lu ñeel askan wi ci commune d'arrondissement yooyu la woon loolu moo doon moo doon acte nag acte bi créer communautaire amone solo waye acte deux bi nga xamné mo dindi contrôle bu bobu Be paré pare indi fi liñuy wax commune d'arrondissement waye ñu yemale ko ci commune yi ëpp Ndakaaru ak la ak Thiès momit amna solo ban jafé jafé la euh, réforme bobu amone muy acte deux amone jafé jafé parce que dañ ko waroon bolé ak ay copar yu doy yo xamné euh, communes yooyu ñu jox responsabilité de leen def transfert de compétence ci 96 am juroom compétences, compétence mooy sañ-sañ dañ ko jël ko collectivité locale xam commune la xam la xam bu bi région parce que momit amon na fi Ndiaye président du conseil régional de Louga Samba nekkoon na ko yal na ko yàlla yërëm alors euh, kon ñooñu kon région nekkoon na fi collectivité locale ñu jëmal ko mu am conseil am budget ni ko commune amee commune am am ko kon loolu mooy acte deux kon acte deux li mu ëmb rëy na 1996 dindi nañ contrôle bu diis bi amoon remplacé par contrôle bu gën a oyof ñaar fukki mbir yi ñu doon contrôlé di ko saytu. bala muy bala ñu koy mën a wéyal ñu wàññi ko ba muy ba muy euh, juróom-ñaar ñu wëlbatiku jël ay sañ-sañ lu ba juróom-ñeenti sañ yu am solo ci suuf ak de construire rek lépp ñu jël ko jébal ko commune yi ba pare nag ne contrôle boobu daan dem ba ndakaaru amatul fu gën a sori foo mën a dem pour ñu contrôle la nga mën a liggéey sa liggéey moo doon gouvernance de de Louga te loolu région de Louga moo ko def région bi waaye bu fekkee ne commune yi la moom préfet ba nga xam ne moo nekk ca commune bi rek moom mooy def contrôle bi bu nekkee commune rurale la comme Darou musse ci yamaana jooja moom sous préfet bi moo ko doon contrôlé kon nag jegeloon nañ contrôle bi kon loolu lu oyofaloon liggéey bi la jafe-jafe ba nag moo doon dañu formé wuloon dañu faluloon ay président conseil rural yoo xam ne war nañoo mën a def liggéey bi ndax nag mbir yi xam-xam moo ko yore bu fekkee ne dañ la jox ay sañ-sañ yu bari nga war koo doxal war nga koo xam

pour ñu xam seen liggéey sëñ bi bi muy tënk suma fi ma jaar waxal na ko sànq loolu ci suma liggéey la bokk di former ay maire ak di former ay conseillers municipaux ak ñiy liggéey ñoom pour que liggéey bi leen jox ñu mën koo xam loolu nag euh, gouvernement waroon na cee taxawu euh, collecte locale yi ci acte deux loolu dafa xaw a manqué leneen lu xaw a manqué it mooy bi ñu leen joxee ay sañ-sañ dañ leen joxoon ay fonds ay koppar tudde ko fonds de dotation de la décentralisation kooku pour euh, sañ-sañ yi leen jox ñu mën koo liggéeyee te bokk bokkuloo nag seen sañ yi amalu yu njëkk kon nag liñ ne yéen bu diis la ñu téeñal leen ko pour ñu mën koo yenu te duñ loolu moo doon fonds de la décentralisation waaye nag li nga xam ne mooy jafe-jafe ci loolu fonds de dotation boobu euh, dafa amuloon solo loolu na nga xam ne noonu la waroon yem yemu ci te dinaa def léegi li ñu wax ci tubaab comparaison sëñ bi comparaison ni ñu koy waxee ci wolof méngale ngoog cey waay eh ko fi ne ak a gaaw waay méngale naa méngale Maroc ak Sénégal ci fonds yooyu ndax boo jëlee fonds de dotation boobu nga xam ne Sénégal daf ko compé ci budget pour gungee ko communes yi ak fonds d'équipement des collectivités locales boo xam ne pour investissement la pour ñu def yoo xam ne dafa dañ dañ koy dañu janoog moom yaa xam ay tali la piste de production ay dispensaires ay écoles looloo tax fonds d'équipement des collectivités locales jóg fonds de dotation nag moom dépense de fonctionnement la garab yu jëm ci hôpital fourniture yu jëm ci école looloo tax fonds de dotation jóg dafa dañ ko méngale ak sañ-sañ yi nga xam ne moom lañ jébal collectivités locales yi 1996 alors léegi nag loolu yëpp boo ko jëlee ci budget état muy fonds de dotation ak fonds d'équipement bi nga xam ne moom la ñu war a dimbalee communes yi cinq pour cent la ci budget état cinq pour cent cinq pour cent mooy téeméer yu nekk nga jël ci juróom téeméer te euh, euh, euh, foog naa daal mu ngi mel ni comme ñu jël cent franc bu nekk ñu jël ci cinq franc ñaar fukki nag jël ci ab dërëm ci budget état dimbalee ko commune Maroc nag defuñ loolu Maroc ñoom 30 pour cent lañ jël xam nga nag 30 pour cent <laughs> téeméeri dërëm bu nekk jël ca fanweer bokkul ak téeméeri bu dërëm bu nekk jël ca juróom bokkul fanweer sos trente pour cent la ñu jël pour dimbale ko ñoom seen commune moo tax booy dem Maroc di visiter communes yi da ngay gis ne carrément ñoo ëpp doole commune Sénégal pourtant nag ëppuñ leen liberté ëppuñ leen ay compétence parce que Maroc royaume la mooy nguur la nguur buur la fi république la kon bu liberté bu jëm ci code locale rek Sénégal moko ko commune Maroc ndax ña wax wali le wali de Casablanca nga xam ne gouverneur bi ak les kayit nga xam ne mooy préfet foofu ñooñu ni nga xamé né non lañu amé amee ci commune sous préfet ak préfet ak gouverneur amé kuñ ko doole ci décentralisation parce que roi royaume la fële dafa nek royaume motax mom moom euh, da ngay sentir né doole roi ba légui bu ngi am ci ki bi fi nak démocratie bi avancé na moo tax nga yëg ne am na collectivités locales yi am nañ liberté waaye nag li population bi gis moom moo ëpp solo mooy bu ñu ma joxee liberté jox ma ay compétence ay sañ-sañ te joxuñ ma ay koppar yu ma liggéeyee sëriñ bi su ma liggéey du fay <laughs> waaw Maroc nag ñoom gannaaw buñ amul sax liberté bu em ni bi ñu am ñun jox nañ leen koppar yu doy de commune yaa ngay defar te ku ne cëpp Maroc <laughs> daw diggante Tanger ak Rabat wala nga daw diggante Rabat ak Fès da nga gis da ngay jë développement moom kenn la ko wax yaay jalaw moom te développement nag sëriñ baa ngi koy wax ci oto bi sànq bi ñuy ñëw développement buñ buggee mu gaaw dafay jóge ci suuf jëm ci kaw mooy buñ suqalee dëkk yi nekk ci suuf muy communes yi ak communes rurales yi mooy yoon wi gën a gaaw pour réew développé waaye doo ñëw ne dangay ngay développé bopp bi ci kaw doo ñëw ci suuf <laughs> du noonu loolu mooy décentralisation dëgg mooy li ñuy wax développement local mooy développement boo xam ne yokkute ci koom-koom boo xam ne ñi ci suuf askan ci suuf yëg yëg nañ ko teg nañ ci seen bët waaw kon nag loolu ci côté boobu moom Maroc moom euh, état yi ko raw ci Afrique moom bëriwul waaw Sénégal lañ ko mënoon méngale te Sénégal moyens yi nga xam ne moom la ñu jox communes yi ak département yi dafa tuuti dëkk maire yi ñoom ma job bi ñi ñu ngi xeex pour que 5 pour cent yooyu ñu yokk ko ci kanam danaa ci yegsi sëñ bi nag bi ma tënkee acte un muy 1972 fi ñu sos commune Tran ak ni mu nekkee coppite bu am solo ci développement askan wi ma wax la ko yàq la nga xam ne moo ko freiné woon muy jafe-jafe bu Sénégal jànkonteel ci diiri fukkat yoo xam ne moo tàmbalee 1980 jëm 1990 ma wax acte ni mu amee solo muy 1996 nga xam ne. Euh, wax dëgg yàlla neexul ba neexul waaye moom it def na booba ak léegi ñaar fukkat la Sénégal def na ay jéego yu rëy ci décentralisation ndax contrôle boobu ñu waxoon dafa diis fexe nañ ba fànq ko oyofal ko euh, doxalee sous-préfet digganteem euh, moom mooy mooy jàkkarloo ak maire ba lépp lu ñu war a signé moo koy signé wala boog préfet bu dee commune bu mag alors le gouverneur du conseil régional Boulogne am 1996 euh, ñu nak jël ay sañ-sañ muy juroom ñent sañ-sañ ko commune communautaire région loolu lañ def 1996 nak jël euh, sañ-sañ yoyu ñu leen jox mu yeen bu 10 ñu leen ko fonds dotation la décentralisation ak fonds d'équipement d'école bi nga

loolu lu ñu lu ñuy wax la rek pour di ko damoo rek waaye amul rawul de parce que yeneen état yi nga xam ne ñoo leen rawoon comme ñun avancé wuñ ñoom jël nañ suñu exemple ba pare lépp loo xam ne lënt lënt woon ci suñu yëf ñoom ñu fexe dindi ko waaye ñu ci bëri nag ci ñoom fii la ñu jàngee waaye gannaaw bu ñu leen wanee naka la ñoom bañ demee seen réew dañu ko def ba lu ñu doon jàmbat fii ñoom ñu dindi ko waaw Rwanda 40 pour cent du budget moom lañ jébal collecte locale Maroc 30 pour cent lañ jébal collecte Sénégal 5 pour yaakaar naa 5 pour nag waroon naa 30 pour cent ak foofu la ñu toll kon nag loolu jafe-jafe la ndax boo ma joxee ay sañ-sañ jox ma liberté te joxaw ma moyen yu ma ko mun a employé daanaka moom euh, joxe bopp rocc làmmiñ lay lay nuru kon nag loolu la ñuy jéem a fànq nag ci acte trois loolu nga xam ne critiqué naa ko ne contrainte la ne jafe-jafe la moom la ñuy jéem a fànq nag ci acte acte trois lan mooy acte trois ak tutura boobu de mooy fi Sénégal tollu tey ci réforme am mu nekk nag lu am solo mooy ñetteeli jéego bu décentralisation def wax naa ne jéego bu njëkk bi di 1972 beneen jéego bu mag boobaa léegi vingt ans la ñaar fukki at la di 1996 léegi nag ñu ngi ci 2016 depuis élection yi passé di 2014 Sénégal mu ngi dugg ci ab soppite coppite bu ñu tuddee réforme bu tudd acte trois moy ñetteli djego bu décentralisation def au Sénégal ñetteli djego bobu n'ak dafa am ay mandarga yu ñu ko xamé <laughs> yu ñu ko xamé mandarga bi ci ñëk moy li tubaab tuddee communalisation intégrale communalisation intégrale n'ak baat bu luxa la waaye li mu rek moy communautaire amatul jël nañu communautaire fi nekkone yëpp def leen commune kooku moy mandarga bi ñëk xamé kay bu acte 3, am yi région comme la région de Louga ñu conseil régional département mom am conseil départemental am président conseil départemental kon au mu collectivité locale commune commune, région acte 3 daf simplifier simplifier nous ko ak yombal rek mu dañ ko yombal def locale commune département waaw nañ ci ñetti locale ci ñaar kon xam nga muy département ak conseil départemental commune yi nga xam nak nañ leen ci acte 3 titre point communalisation intégrale jurna 557 commune cinq cent cinquante sept mooy lan juróomi téeméer ak ak juróom fukk ak ak juróom-ñaar jërëjëf sëñ bi Bakke cinq cent cinquante sept moo am Sénégal ci jamono bi may wax loolu nag ah xale yi jàng war nañ ko jàpp bu baax ndax léegi léeg ci ay rajo communautaire ñu laaj laajo yi ne ku ko xam na ko wax te nga ñëw fi jël si neexal commune moo am fi mu nekk juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar département yi nag ñoom àgguñu dayo boobu ñoom ñeent fukk lañ ak juróom ñeent fukki département ak juróom moo am Sénégal waaye nag euh, ñeent fukki département yooyu ak juróom am na ci ñett yoo xam ne amuñ conseil départemental ñoom faluñu kuréel boo xam ne moo leen di toogal ca conseil départemental mooy Dakar ak Pikine ak Guédiawaye amuñ conseil départemental lu ko waral mooy suufi département Dakar ak suufi ville de Dakar ñoo yem suufi Pikine ak suufi département Pikine ñoo yem suufi Guédiawaye ak suufi département Guédiawaye ñoo yem ole lieu que nag ñuy jox ay sañ-sañ ñoo xam ne suuf yi ñu élif ñoo yem mu nar a indi jàmmarlu ak xëccoo ñu far bàyyee compétence ville préfet moom ñu ne ko toppatoo sa liggéeyu préfet comme ni nga ko doon defee démb barki démb conseil départemental amul kon am na ñeent fukki département ak juróom waaye ñeent fukk ak ñaar ñoo ci am conseil départemental Dakar amul conseil départemental Pikine amu ko Guédiawaye amu ko bu ñu la laajee lu tax nga leen parce que seeni suuf ak suuf yi li préfet élif ñoo yem bokkul ak Tëngéej Tëngéej moom dafa am ay communes yu bari ndax am na commune Tëngéej waaye am na commune Bargny am na Sébikotane am na jam ñaajo am na Yène am na ay commune bari Sangalkam Bambilor donc Tëngéej dafa am gannaaw moom am na conseil départemental waaw moom rek ci agglomération Cap-Vert moom rek moo am loolu Tëngéej moom am na ko am na conseil départemental kon nag conseil départementaux yi ñi nga xam ne dañ leen fale ci département ñu mel ni ay maire yor seen budget def dindi ñeent fukk ak ñaar la pourtant département yi ñeent fukk ak juróom la waaye def ci am ñett yoo xam ne amuñu conseil départemental mooy Dakar Pikine ak Guédiawaye léegi nag boo jëlee cinq cent cinquante sept nga jañax ci quarante deux départements cinq cent cinquante sept plus quarante ñaata la waaw ci ñi mun mathématique juróom benn téeméer yu manqué benn jërëjëf sëñ bi Mbacke kooku moom lañ ko waxee ci français cinq cent cinq cent cinq cent quatre vingt dix ci wolof muy juróom benn téeméer yu manqué benn donc di juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent lii mooy nombre yi collectivité locale Sénégal ci acte trois acte trois bi ñu nekk collectivité locale moo ëmb baati commune ak département mboole seen 599 la ni ko sëriñ bi firee di juróom benn téeméer yu manqué benn kon nag bari na journaliste yu juum ne euh, juróom benn téeméer la ak ñaar journaux yu bari boo koy lire da ngay demee les 602 collecte locale 602 amul ñoom ñoom lu tax lu tax mot 602 ci ñoom trois yi nga xam ne yi ñu ci waroon a génne muy Dakar Tëngéej ak Géejawaay lañ ci yokk te ñooñu. départements département amul conseil départemental commune la ville ba rek moo fa conseil départemental lolou lu am solo la ci acte 599 collectivités locales 42 départements ño am conseil départemental ak 557 communes ont 599 collectivités locales et non 602 waaw loolu a ab sew sew la bo xamne lu jar taxaw la diko leral ñom buñu def sen article yi ñu ci bëri dañ ci juum kon nak lolu moy li nga xam mo am ñu reconduire nak ci acte 3 fonds de dotation de la décentralisation yokk nañ ko sax aslëf way fonds dotation bi légui doyul 599 cent quatre vingt collectivités locales loolu ci jafé ji ma jafé jafe yi mo kon sëriñ bi ne ko naa ko wax lolu ci la bok ndax li nga xam moy avantage moy solo ci moy wax dëgg yalla simplifier nañ moy yombal nañ ndax ñetti xeeti collectivité local mo amone région commune commune rurale waaye nak ci biir acte 3 def nañ ak yombal wàññi ko région mom ñu bayiko defatuñ ko collectivité local def département collectivité local ak commune jël communauté rurale bi nga xamné mo moo euh collectivité local ñu gën ko jëmmal def ko commune loolu lañ tuddé communalisation intégrale moy amatu batam communauté amul loolu nag li tax ñu def ko bëri na waaye bi ci gën a fës mooy dañ daan dem ci réew réewi Afrique yi commune communautarale Sénégal rek la am amul ci yeneen réew yi bu ñu bëggee siixalee seen bopp ak yenn commune ci Burkina Faso wala ci Afrique du Sud wala ci Algérie ñu ne ah ñun de commune lañ mën a siixaleel suñu bopp pour leen dimbale waaye bu dee commune communautarale moom ñun bokk bon bokkuñu askan ñun ñi ñuy siixaleel mooy ñi ñu bokkal askan. kon nag loolu moo tax Sénégal dellu si def marche arrière dal di jël di tuddoon commune rurale yépp tudde leen commune te loolu moom euh, Cameroun Cameroun jiit na ci Sénégal lu mat fukki at man visité naa Cameroun yépp waaye gisuma fa commune rurale lépp commune la comme ni ngeen defe seen commune fii kon nag loolu yaakaar naa leen <clears throat> lu ko gën a am solo amul ñu jël nag li nga xam ne euh, mooy euh, ndimbal yooyu tudd fonds dotation ak fonds d'équipement décole collectivités yi nga xam ne ñooy jàppale communes yi yooyu aussi ci biir acte trois yomb na yomb dugal nañ ko waaye ba léegi commune yi ñu ngi jàmbat ne dafa tuuti ñu amoon juróom-ñeenti sañ-sañ yoo xam ne jébaloon nañ ko communes yi ci acte deux waaye ci acte trois am na juróom yuy ñëw te juróom yooyu ñëw moom euh, seen dominante seen dominante économique mooy affaire yi économie lu yokk

et assainissement mbiri cet hydraulique ak assainissement ñoo ànd juróomi juróom yoyu agriculture élevage pêche tourisme hydraulique assainissement nek na yenen sañ-sañ yo xamne dañ koy jël état def ci comp lu bari alors transféré ko djebal ko commune ak département lolu acte 3 wax nako motax man ci suma conférence ak sumay bind dama wax ni acte 3 boko xolé moy le virage économique de la décentralisation li ëppoon ci décentralisation mbiri action sociale lo woon loo xam luy suqali la dimbalé ñu sonu xex mbënd mi fay lak nangam nangam yoyu lañ doon def fi nak bi yoon dañ bëgg pour communes am ay moyens pour mëna a defar ay tali ci dëkk yi yok courant bi def énergie solaire def li ñu wax investissement nga xamné ku ñew bi gis dëkk bi xamné dëkk bi wax dëgg yàlla soppeku na état ngi dougal loxom way commune mu ci dougal loxom lolou nak pour mu am il faut état aussi yok loxom ci ndimbal bi muy dimbalee commune yi transfert len des compétences à dominante économique baxna moy li nga xam ne euh, euh compétences yooyu mo wax di élevage agriculture ak ñom sen waye aussi maire yi ñu ngi xex pour que ndimbal bobu ñu len dimbal au lieu que 5 du budget bi mu a 15 la bataille actuelle des maires qui s'est plaidoyer avec l'État Pour porter les fonds de dotation le fonds d'équipement des collectivités locales mooy a au moins 15 de la TVA la taxe sur la valeur ajoutée parce que 5 pour cent rek la te loolu dafa alors nous euh, ñu mun a àggal fi agal sen bop lu am solo la mu am loo xam ne itam nag ay mécanisme de financement la yoo xam ne moo war a yokk ci loolu mécanisme yooyu autorisé nañ communes yi léegi ñu leb leb ci ay banques yoo xam ne banque yu am doole la ah wala ñu lancé li ñuy wax emprunt def ko ci journal mooy li Khalifa Sall defoon ba war a leb vingt milliards te am na ñu préparé pour leb ko ah dossier boobu nag ba léegi agul waaye commune bo xamné ne óolu nga sa bop ci mun nga fay moom itam leb bobu autoriser nañ la ko ndax dañu ragal ne buñu yébé ci sen impôts yi ak djouti yi ci marché yi yooyu pour défer commune yi nag dana dana jafe moo tax il faut ñu leb def emprunt té créer ay marché yu am doolé ay centre touristique yu am doole ah, créer fo xamné ay koppar la fa mën a génn loolu ah, nañ leen alors autoriser nañ leen itam ñu euh, lengo ak ay société be mun ci jël ay action société bo gis bu nek ci gox bi te mu ngi dox mën nañ caa jël action mën nañu jënd action moy ñu bok ci société ba be société bu fekkee ne am bénéfice buñ ko koy séddale cëri commune bi génn lolu aussi autorisé nañ leen ko kon nak lolu lu am solo la waaye nag li nga xamné mom la commune yi wara gëna def moy ñu lëkkale seen bop ndax benn commune rek mënul lépp moom la olof di wax ne benn loxo rek du tàccu tewat gaal ak yëgoo ñoom ñëpp ñuy ànd di xàccandoor di di dóorandoo loolu il faut commune Darou Moukhty ban commune la amal frontière ban commune la nga amal frontière ba jóg commune nekk ci arrondissement bi ban nga dendal Darou Marnane ngoog yooyu nga dendal yëpp ngeen def li ñuy wax intercommunalité intercommunalité mooy ñu siixale seen bopp lëkkaloo ba am yoo xam dañ koy semp ci seen liggéey jébbal ko organisme boobu mooy lépp luy yoon kooko koy yor lépp luy bourse pour ñu doom jàngi Dakar wala jàng bitim réew kooko koy yor lépp lu jëm ci cet loolu ko yor donc ñu jël yi gën a diis dénk ko ñoon ñu jël yi oyof loolu mooy intercommunalité waaw ndax lu kenn mën ñaar a ko dàq te benn loxo rek du tàccu il faut ngeen and lëkkaloo di xàccandoor di dóorandoor koku moy intercommunalité leb baax na lool waaye comme leb lu yag yag da ngay fay ñu fexé ba lëkkaloo ku nekk jël ci budget dara ñu am ab liggéey def ko mo gëna yomb mo gëna yomb leb bi kon nak loolu aussi lu am solo alors mu am nak ay lo xamné war nañ ko xol moy fonds de dotation bi ñu leen di jox ak fonds d'équipement des collectivités locales bi dañ war a xool critère ñu koy joxe mooy ci ban anam lañ koy joxe ndax niñ ko gisee daal affaire bi daal xaw na am xaaj ak seen da ngay gis commune boo xam ne suma commune a ko ëpp fuuf ñu jox ko cent millions man ñu jox ma dix te xaw ma ci yenn anam lañ ko joxe kon nag li gën a gaaw mooy ñu ut ay critères critères mooy est-ce que ci population bi la ñuy xool wala ci développement économique bi la ñuy xool wala est-ce que dañuy xool euh, ñaata xale yu jigéen ñoo dugg école bi ma demee île du Cap-Vert loolu laa fa fekk ñoom dañ jël la taux de scolarisation des filles par commune commune bu ëpplee ay xale yu jigéen yu jàng ñu jox la fond bu ëpp ñu xool le taux ba dëkk bi nu mu gën a sore capital bi dëkk bi gën a sore capital bi mooy ëppale kooku moom bu ñu ko xoolee moom capital bi moom daanaka du am dara ndax moom <laughs> mooy capitale te ngay dina am Kaolack na am aslëf Daaru Musse koy ëppale parce que moo gën a sori Dakar donc ñoom loolu lañ ko xoolee parce que dañ bëgg différent développement bam diggante Daaru Musse ak Dakar que Daaru Musse mën ko rappel mën ko rattraper kon moo tax nu mu gën a nu muy gën a sori capital bi ñu koy gën a jox population lu mu gën a yokkoo ñu gën ko jox noo xamee ne impôts yi ci dëkk bi gën naa dugg le taux de rentrée fiscale l'impôt yi am fii Daaru Musse est-ce que fay nañ ko wala fayuñ ko fay nañ 80 pour cent ñu jox la kooku mooy ëppale ki fay cinquante pour cent espèce rek dañ koy jox ki fay cent pour cent nag moom tabarakallah moom bu ñu ko joxee moom yaakaar naa lépp lu mu bëggoon soog na ko daal loolu mooy critère critère objectif mooy ay nattukaay yoo xam ne ñëpp ci teg bët te mu leer naa ñu di bët yu bëccëg waaw bu ko defee boobaa bu ci nekk nag dafa am lu ñuy wax ratio ci comptabilité bu ñu koy jox koo xam ne am nga quatre-vingts pour cent nangam ku am cinquante pour cent nangam ku am cent pour cent nangam ñu jël beneen critère taux de scolarisation des filles taux nangam nangam taux nangam yooyu yëpp ko paree. xool nag yow li nga ci am loo ci am rek ñu def règle de trois divisé par nangam multiplié par li nga am divisé par nangam multiplié par bu ko defee da nga ci daaru mu si am deux cent millions wala trois cent millions loolu moo gën a jaadu waaye buñ ko def rek li tubaab di wax à la tête du mooy rek joxe yaa ma neex buñ ko defee yaa ma neex loolu àndul ak démocratie ñu buggee mu ànd ak démocratie dañuy def ay critères ay xàmmekaay ay euh, yu am maanaa yoo xam ne ci yii la jaar pour def ko te loolu am na pays africain yu ko def île du Cap-Vert bii nekk à 500 kilomètres Dakar ñoom def nañ bu bu ko defee dootu am xaaj ak seen du am werante du am par parpar loolu am daal te comme dañu nekk état boo xam ne dafa bëri ay parti politique ñi jiite li ñu war a moytu mooy jox ay commune lu am solo ñaan commune bi tel parti boo fa gañe commune bele tel parti mo fa gagné fi opposition nek ñom bëri la wuñu fi parle moo am lolu amul sax amul waye dama ne nañ ko moytu parce que mën na am kooku loolu bëgg dañ ko faj ci biir réforme bi ndax ab contrainte la mu am nak lo xam moy mesure d'accompagnement mesure d'accompagnement sëñ bi nuñ ko mëna a firee nuñ ko mëna a firee jërëjëf jërëjëf sëñ bi jërëjëf ci gàggante bi mesure d'accompagnement nuñ koy firee ci olof lépp loo xam ne daf lay jàppale te tax sa liggéey gën a mun a ñoŋ waaw loolu mooy mesure d'accompagnement lu yombal liggéey bi gunge ko gunge la yow mi ko yor jàppale la téeñal la ko yenul la ko ba yen bi dootul gis na ma waroon diisee yooyu nag foofu lay jeexale su ma exposé ci acte trois mooy euh, am na ay fonctionnaires yu bees yoo xam ne fal nañ leen ci Euh, acte 3, tout tudde fonction publique locale waye fonctionnaire yoyu am qualification wax pour communier yi fay fay da fay ci solde mairie solde état lañ di la d'accompagnement bo fiscalité locale moy pour bi nga mom lañ jël jox ko département il faut que ñu changer te commune nag moo tax moo tane département parce que département moom amul impôt moom EPA état yooyu moo ñu koy compal di ko ci jox ak fond d'équipement loolu la département yor waaye département moom am na budget waaye amul impôt budget mu mu ngi ko yaakaare ci ndimbal lu jóge ci état wala ndimbal lu jóge ci keneen yaa xam bailleur de la yaa xam kum siixaleel boppam la loolu la mooy département amul budget propre amul ressource propre alors kon nag war nañu fexe ba département comme am na budget mu am ressource propre ndax mënoo nek collectivité locale am ab budget te amo ay ressources ndax yaakaar état nga yaakaar wa état na bu amé jafé jafé kon fo jëlé yow ressource ñi la war dimbalé dimbale rew réew buñ la wul nak lolu mom lolu mom du budget kok mom warul tax commune jox commune def comme ni commune amé daru Mousty amé ay impôts am marché am ay juuteem am yooyu loolu la la département war lolu ci mesure d'accompagnement yi wara and ak mom mom la ci la top ndax buñ ko deful kat wax dëgg yàlla may nañ leen ñu am ay fonctionnaires yu am solo waaye dañ ragal ne bon fonctionnaires yooyu ñoom duñ am luñ leen fayee waaw ndax loolu dafay diis ci budget commune bi beneen point bi wax naa ko sànq mooy ñu fexe fexe ba 5 pour cent yooyu moo xoon ñu yóbbu ko ba buñ ko mënu def ko Maroc 30 pour cent it parce que Maroc ko ñu ëpp doole xëy na parce que toppandoor nag sa maas que bët yenn waaye xam na lu bopp attan kon nag Sénégal.

yooyu ñu ngi ñew mais ak pour bu ñew ñu mën ko mën ko il faut ñu ko lañ koy xam-xam lay doon xam-xam bobu formation mo koy joxé kon nak war nañ former élu yi yi former agent yi liggéey pour que ñu gëna a ak tout kon que lolu mom lu am solo la fi nga xam ne lay le moy lolu yëpp baxna na département ndax yéen bi ñu leen yéen dis la dis boo xam ne bu buñ lëkkalewul seen bopp euh, di xàccandoor di dóorandoor a jël compétence yi gën a jafe ñu dénk ko organisme boobu boobu nga xam ne moo tudd entente intercommunale wala entente interdépartementale ay mbootaay la yoo xam ne ay commune a ko bokk wala mbootaay yoo xam ne ay département ñoo ko bokk ñu jël yi ngi yaakaar ne diis na ci ñoom seen jox leen ko ba pare jël ci seen budget jox kooka kooka bu ko defee organisme tam dem état dimbale ko ay bailleurs de fonds dimbale ko ñu mën a euh, fexe ba yëf yi gën a ñoŋ kon nag euh, waxtaan waa ngi noonu mu nekk ay points yoo xam ne ci histoire yi Sénégal ak développement Sénégal ay points yu am solo la di acte 1 1972 acte 2 1996 taxu ñoo a jóg li ñu daan jóg mooy acte 3 waaye mënoo tëb nag di wax ci acte 3 te waxoo acte 1 waxoo acte 2 waaw ñu xam fan lañ jóge ak fan lañ yegsi kon fi ñu yegsi am na solo lool ndax département def nañ ko muy collecte locale région génne nañ ko ci collecte locale yokk nañ ci lu ma juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar ñoom ñëpp sañ-sañ yi leen joxoon démb barke démb juróom-ñeent yi yokk nañ ci yeneen juróomi sañ-sañ muy fukki sañ-sañ ak ñeent loolu yëpp rafet na dana tax développement bi gën a jege askan wi moom la ñuy wax gestion de proximité saytu boo xam ne dafa jege askan bi kon nag Sénégal àgg na ci décentralisation euh, niveau boo xam ne ba bariwul réewi Afrique yu fa àgg waaye li nga xam ne rek mooy ñuul ci soow mi daal mooy moyen financier yi mooy koppar yi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee dëkk dëkkaan yi ak dëkk yi moo doyul te loolu li koy saafara mooy ñu jël yeneen impôt yu bees jébbal ko euh, commune yi liñ ciy ragal nag mooy mu diis ci askan bi waaye nu mu gën a oyofe rek te ñu mën koo collecté mooy ñu mën koo ramasser def ko ci budget bi liggéeyee ko dëkk bi dina baax waaye nag comme amuñu doole nañu gën a lëkkaloo suñ bopp ndax lu kenn mën ñaara ko dàq loolu yëpp am na solo waaye tool nañ ci jamono boo xam ne Euh, ab liggéey bala muy mun a gaaw mun a xam-xam moko yoré ndax gis ngeen fi internet gis fi les nouvelles technologies waaw yu yi yi yees euh, te wara a mun nit ñi bari na kon yoyu yooyu mënuñoo nek ñun commune euh, ni nek décentralisation té jox ko gannaaw motax il faut ñu mettre l'accent sur la formation il faut ñu former ñi nga xam ne ñoom lañ fal ak maire yi nga xam ne ñoo leen jiite ak agent ya fay liggéey il faut ñu former leen kon nag buñ fàttee koppar baax na lool waaye nan nga koy yoree ak nan nga koy saytu ba def ci loo xam ne dana ñoŋ ci askan wi loolu nag xam-xam moo koy joxe. Serigne Mouhamed Diouf ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju ci euh, wàllu gox yi ak goxaat yi nga tàmbale ko ci acte un jàll ci ba ci deux ñëw ba ci acte trois. ci wàllu décentralisation nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu matale la anam gu leer la tamit li ci ay avantages yëpp nga leeral ko li ci inconvénients yëpp nga leeral ko wax tamit indi ay propositions yoo xamante ne jàpp nga ne buñ jaaree lépp loo xamante ne jafe-jafe la ci incha allah yàlla mën na ko saafara kon ci turu mu assasatul Wafa bi huquqil iman ñu ngi lay sant cant goo xamante ne am na fu mu tàmbale waaye amu fu mu yem di ñaan yàlla guddal sa fan. te yokk sa xam-xam te liggéey bii nga xamante ne ci nga ci nga ci nga nekk yàlla defal la ci ndam kon ñu fàttali rek ne ñu ngi fii tamit ak euh, maajob bi tey di moom tamit di koo xamante ne doom la ci dëkk bi waaye tamit yor ab liggéey ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane muy commune bi nga xamante ne mooy commune Darou Moukhty mooy ki nga xam ne moom moo ko jiite kon ginnaaw nga xam ne ci wàll googu la sëriñ bi doon waxtaane moom tamit war na cee mën a am jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi ciy jànkonteel ak yi nga xamante ne jàpp na ne ñu ci jaaree dana saafarawu kon dañ koy jox kàddu gi moom tamit su ko defee mu tënk rek li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi ñu fàttali ne rek ne suba ci alarba ji incha allah suba ci dimanche ji euh, incha allah docteur Diongu la ñuy fas yéene dalal fi jataay bi muy waxtaanee fagaru moo gën faju bu dee alterné sëriñ Mouhamadou Mourtada Mbacke njoogu dañuy fas dalal muy waxtaane al khitma fi tariqatil muridiyya muy khitma ci yoonu murid bu dee talaata sëriñ Hamzatu Mbàkke moom Abdul Ahad mom lañuy dalal muy waxtaane war gi nga xamantene war nañ ko sam ndonal murid gi bu ci àllarba ji sëriñ Saaliwu Njaay la dalal muy waxtaane daayira yi nga xamantene moy daayira yu murid yi bu ci alxames ji sëriñ mam Cheikh mbake moom serigne khadim hawba mom lañuy dalal muy waxtane Euh, am solo goo xamante ne ñaan am na ko solo ci wàllu tasawuf bu dee ci ajuma ji incha allah sëriñ xaari Mbàkke moom sëriñ Abbas moom lañu dalal muy waxtaane politique ak responsabilité bu dee ci gaaw bi te incha allah mooy gaaw boobu nga xamante ne moom la ñuy yëkkati jataay yi danañ ci dalal kilifa yu bari bokk na ci kilifa yooyu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke moom sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma su ko defee moom dana waxtaan ci almuridiya amama taxaddiyaat al i'lamiya wa tanzimiya muy mouridisme ci kanam défi yi nga xamante ne défi communication la ak défi organisation kon incha allah ci gaawu boobu noonu moom la ñuy fas yéene yëkkati nag jotaay bi ñaan yàlla fekk lañu ko ay at yu bëree bëri kon li ñu def rek moom mooy dañuy njëkkante waxtu yi jox kaddu gi sëriñ Madiob bi tey moom tamit mu indi ab tënk ci lii nga xamante ne moom la sëriñ. sëriñ Kara. ñoo ngi nuyu ñëpp ji jiital ci nuyoo bi sëriñ sëriñ Abdou Samad bi nga xam ne mooy imam di ko jox suñu nuyoo ngir mu nuyul ñu sëriñ Abbas Mbacké di ko ziar te di feddali suñu kóllëre ak suñu taalibe euh, ñun ay taalibe Thierno Ibrahim lañ te moom lañ bëgg di dunde ci waxtu wu ñu nekk ak fu ñu nekk bëgg nañ fu ñu xàmmee itam loolu gën a fës li tax ñu xàmmeeñu di sant bu baax a baax ñi nga xam ne itam ñoo organiser mbir mii tey nekk na loo xam ne lu am solo la te luy leen di yeele ci beneen côté ndax xaj na mënoon ngeen a jàpp ne xam-xam bi mënoon naa yem ci biir julli gi ak woor gi mais xam ngeen ne loolu aussi am na leneen lu mu war a àndal ci dund gi ba ngeen dugal ci lii nekk thème boo xam thème bu am solo la te boo digloo thème yi fi jot a jàll ak yi ngeen di waajal itam da ngeen xam ne thème actualité la maanaam thème boo xam ne nii dañ koy dund nga xam ku ci génn man ngaa daal di def benn jugement léegi ci li nga xam ne amoon na wala euh, ma ngay waaj ma ngay waaj am wante itam di sant bu baax a baax suñu conférencier bii nga xam tam jàpp naa ne sax man moom tënkal na boppam wax ji parce que daanaka point yi mu wax yëpp point bu nekk tënkaat na ko ba képp koo xam ne raté woon nga li mu njëkkoon a wax sax boo fekkee fa muy tënk da nga xam la mu njëkkoon a wax lan la wante comme dañ ko baaxal ci conférence ci waxtaan yu mel nii te ñi ko woote tey ji woowoon ma ne ma naa ci wax sama xalaat itam surtout que may nekk maire Darou Moukhty loolu itam di lu ñu yàlla defal loo xam ne ni itam Euh, yaakaar naa lu am solo la loo xam war nañ ko ci santaat bu baax a baax ndax ñu ne yaay meeru daaru mu si yombul donc su yàlla defee ñu nekk ko kon war nañ cee santaat bu baax a baax ndax borom dëkk bi moom dama koy wax toujours defar na dëkkam ba pare ku defar mu defaru ku defarul mu defaru kon nag suñu yàlla boolee ci yi nga xam ne li ñuy defar mënees na koo gis kooku moom dañu war a santaat bu baax a baax kon Serigne Mamadou xam naa comme ni mu ko tënkee ci acte trois acte act acte euh, acte un acte deux ba acte trois wante bi mi tambali avons bu ngeen ko diglo fàttali na Nous li amone avant indépendance ne amone nañ fi avons commune ñu dox bañ am indépendance ñu commune parce que avons communes yi Nous ya léral na Nous avons ku fa juddo won rek Nous nga ab doomu ndax da ngay am nationalité française Nous nak mais ñun suñu histoire carrément ci mbirum décentralisation wala collectivité locale mi ngi tambalé mënees na ko wax ci 1972 bi nga xam ne ci lañ indi communauté rurale donc moo tax mu ne foofu mooy premier act ba ñu doog di dem premier act boobu itam wax la leen ne jafe-jafe yi nga xam ne gisoon nañ ko ca ba waroon a toogaat kojewaat jafe-jafe yooyu nga xam ne gisoon nañ ko ca waxoon na leen ci itam ne leen premier act boobu li ci ëppoon ci daanaka communauté rurale moo ngi mel ne ay dépenses sociale rek la doon def maanaam jàppale nit ku sonn ku am loraange wala xamul ne moom dafa defarub dëkkam mu jëm ci kanam léegi nag yeneen act yi ñoo waroon a corriger loolu ba loolu tax na 1996 bi deuxième act bi ñëwee mu créer région xaw a yombal contrôle yi nga xam ne doon na am ci diggante nguur ak collectivité locale ndax loolu taxoon na mu mel ne centralisation bi desoon na ba ñu gën a wàññi contrôle yu bari euh, point yu bari wax na ci ñaar fukki point juróom-benn ñu dem ba nga xam ne yu ci bari sous-préfet wala préfet wala gouverneur mën na ko def te gouverneur sax bi région amee la koy mm, waaw la koy yemale euh, wante itam euh, contrôle de légalité yi rappelé na ko ak juróom-ñeenti compétence yi nga xam ne état bi moo ko yoroon mu ne lii na dama koy jox collectivité locale yi ñu liggéeyal ko seen bopp mais wax na leen ne itam ay compétence ku ko dénk nit itam da nga koy dénk moyens yi nga xam ne mooy tax mu man koo mën koo doxal ci biir loolu la leen waxoon ne am na ay moyens yu ci amoon lu mel ni ay fonds de dotation wala ay fonds d'équipement des collectivités locale mais rappelé waat na itam fàttali na ne am na ponk yoo xam yu am solo la loo xam ne ni collectivité locale munu ko def te waxtaan amu ca ak sous-préfet moo ngi mel ne lepp wala ñu defal seen budget wala ñu wara délibérer ci mbirum ci mbirum exemple rek la wala marché public yi ñi mais na itam ne am solo lol formation am ci élu mo xam ñi nga parce que buy fal lu ci ëpp politique lay doon donc parti politique bu ëpp doole moy falu am ñam fal xajna amuñu xam collectivité locale donc baxon na ci ñu former bu pour ñu mën a doxal loolu ñu war a doxal fonds de dotation itam insisté na ji te wax na leen moo tax naroon naa ko sax source de financement parce que baaxoon na ñi toog fii itam xam collectivité locale fan lay jëlab xaalisam parce que am na ñoo xam dañu jàpp ne état moo koy jox xaalisam fekk na la muy doxee ci biir dëkk ba la koy la koy jëlee boo jëlee dëkk bu mel ne Darou Moukhty tey jii l'impôt bi ñetti million la toll te population Darou Moukhty mi ngi nekk ci ñeent fukki junni nit ci recensement bu mujj bi tey ñu ne pour euh, lempo daaru musi ñetti junni la boo demee Mbadiane lempo ba nekk juróom junni juróom-ñetti soo demee Ndoyeen lempo ba nekk ñetti million ak genn wàll kon waa daaru musi itam war nañ xolaat xam ne suñ bëggee lamp yi di tàkk suñ bëggee mi di dem fépp itam il faut ku ci nekk lam ci mën a jàppee mu jàpp ko ci wax na aussi ci fonds d'équipement des collectivités locales soo xoolee lu mel ne marché bu bees bu daaru musi bi ñuy tabax ci loolu la jógee fonds d'équipement de collectivités locales ci la ko état bu Sénégal financé ba ñu commencé di tabax marché bu bu bu Darou Moukhty mais itam wax na leen ni mu tuutee fonds yooyu ak ci yenn critères lañ koy joxe parce que boo xoolee dëkk bu mel ne Darou Moukhty nee neenaa la ñeen fukki junni nit ñoo ngi fiy ju euh, yewwoo mais ñaata école primaire ñoo am Darou Moukhty ñaata lycée la am ñaata collège la am ñaata cent de santé la am ñaata poste de cent la am tey ji boo xoolee li koy jox ci fonds de dotation 22 millions la nga jëlaat beneen dëkk boo xam ne Darou Moukhty moo ko loolu fépp mu daal di am lu mat ñeent fukk wala mu am ñaar fukk ak nangam wala mu am lu yées tuuti daaru mus nga ne kon fan lañ ko teg te bu fekkee ne dañu bëgg aussi askan bi dund ci dund goo xam ne ni kenn du ñee sa moroom parce que jox nañ ko loo xam waruñu ko jox faaw ñu wut critères yoo xam ne ni mooy tax mbir mi mën a yomb moo tax moom sax def na ay proposition ci ay critères ndax am na lu mu gis ci yeneen yeneen dëkk donc su fekkee ne daaru mus dañuy euh, Sénégal dañuy jël TVA 5 pour cent ñu ne boo demee Maroc moom nee na leen 30 pour cent la boo demee Rwanda 40 pour cent la te TVA bi mooy ñun ñoo ko fay parce que boo demee jënd sa café gi am na TVA boo ñëwee jënd sa suukar am na TVA loo jënd am na TVA état bi ne loolu ngeen doon fay nag danaa leen ci delloowaat mais lam ci delloowaat téeméer boo jël euh, juróom yi la la delloowaat wante nag bu duñu fàtte itam ne état itam am na lu ko war loo xam ne nii itam mu ngi koy liggéey ci biir réew mi xaj na ñun en tant que collectivité locale dañ jàpp ne loolu néew na mais war nañoo xam itam ne am na yeneen wareef yoo xam ne ni mënuñu ko te état moo koy jéem a moo koy jéem a def donc acte deux bi mi ngi noonu ñëw na euh, conseil régional daal di daal di ñëw mais conseil régional moo ci yokk ak wàññi yenn contrôle yi mais mu daal di leen wax ne li taxoon tey ji nag ñu woote mooy acte trois de la décentralisation mais mënuñu ko wax te xamuñu lan mooy acte un lan mooy acte deux donc di ñëw ci acte trois donc ñaar yooyu moo taxoon mu wax leen ko wax leen aussi lan mooy tax ñu mën a xàmmee acte trois mooy jëlee nañ fi commune d'arrondissement jëlee nañ fi communauté rurale jëlee nañ fi région léegi département mooy mooy am am na yeneen compétence yoo xam te jàpp nañ ne war nañ ko dooleelaat collecti collectivité locale yi donc ci tënk comme dafay dog gi dafay jege mën nañ jàpp ne loolu nekkoon na point yoo xam ne ni point yu yu am solo la parce que mi ngi wax ay mesures d'accompagnement mi ngi wax fonction publique local tey jii soo jëlee commune rurale yu njëkk yi benn ASCOM la ñu amoon benn agent tey ñu ne leen nekk ngeen commune benn agent boobu moo fa nekkaat mais bu ñu ko dugalee ci fonction publique local bi su fekkee ne collectivité local bi moo ko war a fay dana metti ndax bu fekkee ne dañ ko bu ci grille boo xam ne ni collectivité local bi amul lu mu ko mën a fay dafay daal di metti parce que boo jëlee tey jii biñ ne ñu commune ngeen état bu njëkk moo daan fayal Euh, xam naa du euh, Mamadou dana ci ñëwaat bu njëkk état moo doon fay chauffeur moo doon fay ASCOM moo doon fay adjoint au mais léegi bi ñu nekkee commune def na leen yéenay fayal seen bopp loolu mais loolu fan la ko collectivité locale bi di jële fii ci biir dëkk bi la koy la koy jëlee donc dëkk bu dox bu nekk waa dëkk ba ñoo ko ñoo ko doxal donc moo tax li ngeen woote tey lu am solo la parce que dana tax bu ñu fi jógee dana am ñu sawaraat sax ne nañ woote beneen waxtaan boo xam ne danañ ko defaat pour gën a pour gën a mën a xam c'est vrai que ñun en tant que collectivité locale loolu war nañu parce que war nañ gën a mën a waxtaanat ak population bi parce que am na ñoo xam ne ni am na lu leen war duñ ko def parce que xamuñu ko suñ ko xamoon rek daañ ko def bu ñu xamoon ne l'impôt bi ñuy fay mooy tax lampe bi tàkk wala mooy tax li danañ gën a sawar ci fay ko danañ gën a sawar ci wax keneen aussi mu fay donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm te di am mbégte bu baax a baax ci li nga xam ne woo ngeen ñu tey ñu fekk lii te waroon a def synthèse bi te di jéggulu bu fekkee ne wax nañ ci loo xam ne waruñu ko woon a wax wala niñ ko waxee du noonu parce que itam bëgguñu itam wax ci noo xam ne nii day xaw a jege politique ndax sëñ Moustapha mi mu ko doon wax sànq ne ma nag euh, na nga moytoo jege politique booy wax ci wax ji donc loolu aussi doon naa ko ci jéem xañ na dana am ñu ko ci gis mais euh, jubluwuma ko ci woon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah Eh, sëriñ bi gënaaw waxtaan wu am solo bi nga bi nga ñu àndil tey yaakaar naa dañuy njëkkanteeg waxtu bi rek su ko defee kii da doon laaj mu ne ndax acte trois de la décentralisation bi nga xam ne moom ko doon waxtaanee ndax bokkut ci li nga xam ne day xeex day néewal doole yenn kilifay diine yoo xam ne dañoo sañtoon seen dëkk mel ni da leen di dañuy da leen di xañ yenn àq ak yelleef yi nga xam ne amoon nañ ko seen dëkk ndax diversification bi muy am bi muy andi ci ñoom. jërëjëf laaj na laaj bu am solo waaye loolu moom taxul acte trois jóg acte trois li tax mu jóg mooy li ma leen wax mooy fi mu fekkoon décentralisation mu yokk te léegi ñi nga xam ne ñooy borom dëkk yi nu ñu dépendre ci autorité administrative muy sous-préfet ak préfet noonu lañu dépendre ci maire parce que dëkk léegi niñ ko définir mooy commune ay somme de quartier et de village la kon nag borom dëkk yooyu ni ñuy liggéey ak préfet ak sous-préfet noonu lañu war a liggéey ak ak maire bi kon nag loolu moom li li tax ak trois jóg moom pour defar la waaye lépp luy fiiwal ak lu yàq moom taxul mu jóg mu naam nag li ñuy wax programme programme boo koy réaliser da ngay tomb am fooy toll yokkaat sa jéego yokkaat sa jéego moo tax mënuñoo def acte trois ci 2013 2014 rek ah 2016 ñu gis résultat yépp il faut moom ay jafe-jafe yoo xam ne ni muy feeñee lañu koy lañ koy fànqee muy feeñ di ko fànq di feeñ di ko fànq bi àgg ca kaw noonu euh, la kii itam nee na acte trois de la décentralisation nga xam dañ ciy xaaj dëkk yi lu tax duñ ci laaj kàddu askan bi askan bi tax duñ ci laaj seen kàddu ba noppi doog xaaj dëkk bi niñ ko bëgg a <laughs> waaw loolu léegi xam nga moom wax dëgg yàlla waruñoo mën a xaaj ab dëkk te laajuñu askan bi loolu moom bu fekkee ne am na loolu erreur la mooy lépp lu ñuy def bu fekkee da nga ne askan wi ngay liggéeyal lépp looy def da nga ciy diisoo ak askan wi mun na am nag loo xam ne technicien ak waa administratif ya ko def ca gox boobu ñoo juum waaye boo demee ca téere bi ñu tënk acte trois doo ci gis dara luy indi xajale ak seen waaye nag mbir ngi nii ñu war koo defee nii doomu aadama ak matadem xëy na defe ko neneen waaye loola taxul loo loola jóg loola taxul mu jóg waaw kon nag lépp lu ñuy war a def dañuy war a def li ñuy wax concertation participation kooku principe def